to bi dafa tàng. jër. waaw ginnaaw ma sant yàlla maa ngi jull seen sant sama ñaar waajur di sant monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall commune Diamaguène Sicap Mbao ko sant ko gërëm gis naa taxawaayam si si man bu baax a baax di sant staff ñàkk jariñ muy Aliou Fall ak ñëpp ñu mu nekkal di sant fan club ñàkk jariñ muy Mafia CFA képp fa nekk bopp ba geen sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp set nag waa Thiaroye bu baax di sant digri nekk Thiaroye gépp digri nekk Thiaroye gépp sant naa parce que tey daf nañ seen devoir daf nañ wane nañ 100 pour cent mi ngi nii lii mooy 100 pour cent moo tey sama xol dafa fees dama kontaan waaw moo tax damay sant ñi nga xam ci maanaam mënut a ñàkk muy baaboo yi Baye Sidi di sant Yaxya Fall di sant Jaga Thiandoum di sant Touba Thiam di sant Djily Mbaye di sant Rës bu baax a baax di sant trompeur fii ba New York fii ba États-Unis gis naa taxawaayam li ma yónnee jot naa di sant képp nga xam ne yaa ngi jàppale ñàkk jariñ marché Thiaré nag bàyyi ma kenn képp kuy ouvrier sant naa la képp kuy chauffeur wala apprenti sant naa waa guy ga jag saaku fii ma dëkk muy tëstoo farba jàmmi réew teen bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Farba yëpp di sant nag sama staff waat bu baax a baax Alim Fall maa ngi koy bu baax di ko gërëm moo fameem parce que làmb dafa métti waaw ngay bëreeg champion laay Pythagore noo waajalee combat bi waaw ni ma ko daan waajal bii nag di see parce que bii damaa gis samay mbokk képp ku nekk mbër caare goxu commune bi yëpp gis naa sa taxawaay moo tax nag ni ma ko doon paree daf bii da see raw te waa caare Petit Ba alliance Birame Baye Tapha di sant ñëpp nag Gavion yàlla ko yàlla may ndam yàlla yàlla may ndam. moom nee na cirib moom nee na bi. ciribu carab bi maa ngi si ñëw ba la sant naa la gërëm naa gis naa taxawaay Baye Tapha gars yi sant naa leen bu baax gërëm leen cirib carab bi la 14 lay leer dinaa ko wan luy 14 dinaa ko tuus def ko ko leeral àdduna bi luy cirib carab parce que boo dégg ma la cirib carab mooy man damaa juddoo si keppaar goo xam ne ay champion ñoo fi nekk muy Babacar Diarra Sera Youssou Diouf Diop. duñ xaaf ñooñu dama jaar si trompo dama jaar si keppaar ñooñu moo tax père jëli bi am coor jëli bi da am coor numéro ak écrit bi moo tay cirib carab naa ko man moo dëgg man nag man cirib carab mooy fii damaa du juddu fii di dawal saret bu ñekk xale bu ñu misaan saret bu ñu nee cirib xiir dañuy tëdd bërëngu nee naa ko mu ne ko cirib mu ni moo cirib bu ma defee cirib du ma def carab waaye mu ne ko mu jeex parce xiir moom bu daal sa ginnaaw di nga dal le lu lu wokkut tey ndax dina xeex ak laay Pythagore waaw pare naa lépp boo ma gisee ni ma def sànq mooy loolu pare naa xeex pare naa bëre pare naa daan bu soobee yàlla si kàttan bi moom yàlla na yàlla suturaal ma am ndam waaw di sant képp koo jàpp fii ax ma sant naa ko tamit bu baax a baax kii dafa jóge Europe am dafa biir ginnaaw dafa jóge ba Europe paas ñëw buur waa ñëw nañ Kaolack gi nag képp Casamance ba Mali Kees Touba Bambey bàyyi ma kenn benn dëkk bàyyi ma ko parce ñëpp dañ may jàppale. ndax yaa ngi sóoraale victoire la mën a yóbbu si sa carrière. waaw moo tax li génn waa Thiaré génn kon de naa la yow moom di ñibbi yow xaar ma ñëw xaar ma ñëw waaw noonu la demee di sant ñëpp su ma mënee xam naa ko moo tax ma nii tey parce que ba mu mënee na tey sama gox gis sama gox ni mu demee moo ñëpp jóg a te coono bu ne dinañ jégalu baax a baax dinañ wax ne. da koy xaar wala da nga koy fekki. non lépp mën na ne. waaw ah. làmb ji mu duggee ba ci géew gi àdduna bu ñu ne xam ñax li mu bëgg a def. wooteel mu jeex. pare na sant Codé. sant naa bu baax sant ñëpp gërëm ñëpp nag. di leen kontaan nag musal ma fi ACFA mu xam ne seen bu gis nga leen nii. sonn nañ trop. Aliou Koura ndeysaan. mooy président Fatick sant sant naa ko bu baax. Famara Samba Sougou Pape Mel sant naa ñëpp di gërëm ñëpp waaw waaw gis nga da ngay def lu am solo di leen sant waa Mafia CFA parce que sonn nañ ak sama waa ko ak sama waa igri bu baax a sam-sam moom bàyyi ma kenn caari gi un ba deux ba trois sant naa ñëpp a na Mamar Kaari Gora Diop Gora Diop am na lu ñu waxante woon te xam naa ni nga ko def bépp commerçant bu nekk caare Fall war nga bàyyi sant naa la gërëm naa la dinañ ñaan jàpp kan Malick sant naa leen gërëm naa leen waaw di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp gis naa taxawaay waa koñ bi waa caare gis naa taxawaay bi sant naa leen gërëm naa leen li ma leen desal nag bu soobee man leen rek jox leen ko États-Unis la njëkk a bëre si équipe bi